jëmm ji ngeen àndal ngir liggéey Sëriñ Tuubaa bu rëy bii ñuy def tey nag ñoo ngi ci bis bi nga xam ne dañ ko baaxoo di ko daje ñun waa Côte d'Ivoire waxtu nekk ñuy daje alxames ak samedi bu nekk ak dimanche ñuy daje tànn benn bis tudde ko bisub xasida at bu jot ñu koy defee ci genn commune yi fi nekk tey jii nag commune abi ajame moo féetewoo bis bi di fukkeelu fan bi nga xam ne fukkeelu yoon yi nga xam ne ci lañ koy def fii tey xanaa ñu ciy sant Serigne Touba bu baax rek di ko delloo ak sant di ko tënk ci sunna di jàng alxuraan ngir jëmmi sëriñ bi di jàng xasida ngir jëmmi sëriñ bi di berndeel gan ñi ngir jëmmi sëriñ bi tayit di ci yaakaar ngërëmal sëriñ bi no am ci tawfeexu sëñ Isaaxa Mbàkke mu si Ahmadul Basir mi ngi ci biir teewe na ko sëñ Moustapha rakkam mi nga xamante ni mooy doomi sëñ as sëñ Cheikh Assoufal na ko Cheikh Mortada mu Cheikh Abdoul Ahad di borom Côte d'Ivoire di suñ jëwriñ ñu ñëpp teewe na ko ak seen mbokki bopp yëpp ak mbokki seex yi fi nekk kon daal noo ngi yaakaar ci ngërëmal Serigne Touba di xam le ni nun de nii rek la ñuy def ñooñ ko ànd nag kuréelu xidmatul xadim xidmatul xadim moo doon mboolem daayira yi nekk ci gox yi ci commune yi ak fuñ fi man di nekk ñoo boolewaat seen bopp def benn fédération tudd xidmatul xadim jël sëriñ Moustapha Fall teg ko ci kanam ak sëriñ Aliou Thiam wax dëgg yàlla am na mbégte bu baax tey jii ku ñëw fii ba gis liggéey bi gis ni ñuy doxee xam ni sëriñ Touba moom boroomam jox na ko lépp damay faral di wax ni lépp lu ni sëriñ Touba am na ko taraw na ci ñëpp jërul seet baatin da ngay seet sayir tey alxuraan ji nii ñu koy jàngee di ko dëkke buñ nee la sëriñ Touba moom alxuraan dara lay doy ci ni nan la def alxuraan ba moom ko te fekk ko fi fekkoon ñu koy jàng nga daal di wax ni yitteem yëpp dog koo jox di ko liggéeyal yëmu ci Serigne Touba rek la yàlla defal doomam yëpp mokkal alxuraan keneen amu ko ci kaw suuf Serigne Touba rek la yàlla defal mbind mii nga xam ni moom la jëmee ci yonte bi sallallahu alayhi wa mu fekkoon fi ñu doon bind Kaab mas ne ko cee wax ak Anzaan ak Boseyru mu féete leen kaw li ko ko may lii it ci la bokk kon daal Serigne Cheikh ñoo ngi ci liggéey bi di koy wéy ci mu jot dixième fois boo xamante ne bi ñoo ngi koy def di ko ànd ak waa xidmatul xadim ni ñu koy defee it mooy lépp lu ci ruus dañuy dem ci commune bu amul kër jënd ko fa kër ñoo ngi toll ci kër gu yëpp googi jënde ko dix-huit millions ñoo ngi koy defar ba kuule nañ ko ba yëkkatiwaat beneen bi liy bàyyi koo fii dañ ko fay daal di delloo bu noppee ñu toppaat commune bu amul ñu def la ko noonu lañ fas yéenee di continuer di liggéey ci ki nga xamante ni bii moo fi nekkal Serigne Touba di sëñ Makumba ñu ànd koog moom ak mag ñëpp ànd koog sëñ Mourtala mi jëwriñu Côte d'Ivoire ànd koog sëñ Moustapha Fall ak sëñ Fallou Mbaye Bissiré ak sëñ Omar ñoom ak sëñ Aliou Thiam mi nga xamante ni bii mooy jëwriñu très civil fond Aïdou Darayni kon xam naa bu amee leen loo ci rotal rek tey suñu xol daa sedd ba yenn yi mënuñu cee àgg waaye noo ngi bég bu baax a baax a baax. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi rawatina mbokki taalibe yi nii seetaan tey ñu ngi fii ci Abidjan ci barab bu ñuy wax jardin du rail toog sëñ Moustapha Cissé bokk ci jëwriñ ñi nga xam ne nag dañoo jóge yaamu sukkuru ñëw ci bis bi sëñ Moustapha ñu lay ziar di leen jaajëfal di leen mastaw ci coono yi di nuyu mboolem koo xam ne yaa ngi ci biir jotaay bi hmm, ak ñi nga xam ne ñoo bokkoon ñoom liggéey bi te saa def ñu am gànt xanaa di jiital nuyoo bi rek suñu jëwriñ ñu bàyyi ci gannaaw hmm, ku demee ne sëriñ Balla Diop ak suñu imam sëñ imam Mbacke ak suñu jëwriñ sëriñ baar Sey mi nga moo ne mooy yore daari ci biir jitaay bi nag ñu ngi ci ànd ak sëriñ Cheikhouna mi nga xam ne moom la Cheikh Moussa Diop yebal nga xam ne moo nekk deuxième imam di feggoo sëriñ Modou Ndomba nga xam ne moom mooy yore lépp lu jëm ci wàllu organisation bi ci suñu càmmooñ ñu ngi dana sëriñ Fallou Garas Sall nekk ci jëwriñu kawrit kuréel gi ak Cheikh Abdou Sall ak mboolem ñu ñaandalal waaw ah, xanaa di ko rafetlu bu baax a baax rek nga xam ne moom liggéey sëriñ moom fu ñu mën di nekkit mooy li ñu war bis bi nag moom yokkite rek lañ ciy gis saa yu ñëwet ba ci ren jiit tey ñaan suñu borom def ñu mën ko fekkee ay ati at ba mën ko ànd ak yéen ci liggéey bi ñoo ngi koy rafetlu fu ñu mën di toll daal fu ngeen teew fu ngeen teew rek xam ne ne moom ñoo ngi seen biir eh, liggéey sëriñ moom fu ñu mën di nekk ci kaw suufit li koy ñu ngi am suñ kattan incha allah dees nañ ko mën a teewee di ko rafetlu waat baax a baax a baax. waaleykum wa rahmatulah ñoo ngi leen di bu baax a baax di siyaare mbokki taalib yi yëpp comme ni ko sëñ Moussa waxee di siyaare suñu jëwri ñi nga xamante ni ñoom lañ bàyyi ca dëgg ba bu ñu ñooñu yabal ñu ñëw fii jiitu ci sëñ Balla Diop ak euh, sëñ Baara Seye mi nga xamante ni moo jiite xasida di siyaare ñëpp rek ak ñi ñu àndal euh, kuréel gi moom comme nii kuréel yëpp di doxe rek noonu lañu koy doxalee. dañuy di répéter dimanche bu jot ci euh, kii fee ca Yamoussoukro dañuy dajaloo ci kër Sëñ Tuubaa toog di di di comme ni kuréel yëpp di répéter guddi àjjuma gu jot tamit dañ koy taxawal foofu ci sa koro di kuréel jàngin comme ni ko ñu koy defee ci jataayu murid yëpp rek noonu lañ koy doxale kuréel yu mag yi di doxe daal guñ fa nag waaye ci noonu la ñuy doxee di répéter daaj bu ñu bëgg a jàng di ko déglu di ko répéter ànd ak seeg suñ jëwrin yi xamante ni mooy sëñ Pape Cheikh sëñ Cheikh Ka ak sëñ Pablo sëñ Njàmme ak sëñ Jili nga xam ne ñooñu moom ñoo yor na wàllum ni ñuy répéteel ci ci ci biir daara ji. toog ak soxna Adja Ndiaye bokk ci jëwriñ ñi nga xam ne ñooy daayira yi maam jaara yi nekk Yamoussoukro soxna Adja ñu lay ziar di leen wax ne di leen jaajëfal ci coono yeeg yooyu leen wax ne bisub xasida bi naka ngeen ko gisee ak nan ngeen koy dundee fële ci Yamoussoukro ngi siyaare waa Touba Abidjan gépp ñu ngi siyaare ñépp tey kontaan bu baax a baax ci teew gi nga xam ne teew nañ ko fii ci journée xasida bu tuuba ajami ñu ki kontaan bu baax waa ñu teewal fi nag suñuy jëwrin ñi nga xam ne ñoom lañ bàyyi ca euh, Yamoussoukro muy soxna Ndumbe Seck waa ñu ma ànd ak nag samay mag ak euh, góor yàlla yëpp ñu teewe si woon bis bii nga xam ne mooy bisu journée xasida bi ñu ciy kontaan nag bu baax a baax a baax a baax a baax tey ñaanal bu baax ki nga xam ne mooy suñu yaakaar di sëñ euh, Muntaxa Bachir ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax saa borom guddal fanam fanam lool waaw te may ko gudd fan te defal koy tawfeex bu baax ba nga xamante ne liggéey maamam bii nga xam ne moom la soobu saa may ko mu fekkee incha allah dañ ànd koog moom. bis de moom ñu ko gisee moom mooy rek euh, ni ko waa Abidjan di organiser chaque année incha allah ñu teewe ko yàlla na yàlla may wër ak fekke ak tal ñu koy teewe saa su ne rafet lu nañ ko lool it moo tax it bu ñu ko déggee lu ñu jàpp ñu bàyyi ko pour ñëw teewe si bisub Serigne tubaab bi di bisub xasida yi xasida moom mooy Serigne Touba mooy ay tànkam ndax loolu sëñ bi wax.